di leen wax ni yéen jigéen ñii dama bëgg ngeen déglu bu baax li ma leen di wax opposition bii fii ñëw di leen fen bu leen leen déglu ba ngeen leen dalee boteel ba léegi ñuy defal defaluñ leen dara ni ko sama ba Basirou jaañ waxe samp ñu fi bu robinet taxawaluñ fi ab poto lamp kon nag adada doy na Sonko moom nga xam ne nag ab fenkat la boo xamante nii fen na gonay ndaw yëpp ba yàq seeni xel ñi yow ñëpp bàyyi nañ ko xam nga ñun lan la ñu bëgg opposition lañ soxlaatul fii ci dëkk bi fii benn dëkk la genn kàddu borom dëkk bi di sëriñ Muntaxa al Basir kenn ku nekk dégg na seede yi muy wax ci président Macky sàll comme président Macky Sall carte yi la soxla na ngeen ko ko jox te it ngeen xool bu baax a baax a baax liste yi ñu leen andil ñi ci nekk ak liste bi leen président Macky Sall jox ñan ñoo ci nekk. c'est très important ay député yàgg nañ fi am nañ fi mais kenn xamu leen ndax jëriñ jëriñuñ dëkk bi dara leen rek lañ fi nekkee bu ñu demee ensemble di saagante ci ñun ay royukaay lañ dañ ñoo yar ci diina ci loolu rek lañ ñu war a gis. di leen wax ni nag nangeen ngeen gën a jàppale Moussa Mbaye Moussa ñun suñ xel gën naa dal ci yow ndax nit bu xewlee ay dëkkandoom yëpp génn. loolu xel mu dal la ñun daal ñoo ngi sa kanam ñoo ngi sa ginnaaw ñoo ngi ci sa wet ci côté yëpp comme niñ ko daan defee chaque jour yow suñu frère nga te it bi la yàlla maye bëti xol ba ngay gis te gis nga lu baax li muy yoon bu baax bi muy lan la coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ni président Macky Sall moo ko jiite corniche bii rek lii nekk suñ kanam jar na yéen moom waa Daaru Minam bu leen xoolati kenn kenn kenn kenn jàppale leen président Macky Sall ci xam ni soo leen ko jàppalee lii di ñëw mooy dàq Moussa délégation bi ma àndal gis nga leen ñoom ñëpp ñoo ngi nii ñoo ngi ci sa ginnaaw yow suñu frère nga loo man di nekk ak lu mu mën di doon boo gestoo di nga ñu gis combat bi doo ci wét bari na combat yu ñu ànd ma ne ko jàmbaar nga xeexkat nga lii nga am boo yaafu doo ko am parce que nit ñi dofuñu président Macky Sall tàllal na la loxo delloo nga ko loxo bi ca loolu la ñuy wut suñu xeex nekkuñu fi di xeex rek pour yàq dañuy xeex pour ñu reconnaître ñu pour ñu mën a defar dëkk bi ndax dëkk bi ñun ñoo ko mën a defar ñoo fi dëkk di leen sant di leen gërëm di sàkku ci yéen ñaan yéen jigéen ñi parce que ñun yéen lañu am jeunesse bi xëppi leen seen i bët ngeen xool bu leen nangooti kenn di leen nax xam ngeen ni yëfi dof yi ngeen dégg tey benn waay tëbe fee naan jël leen ay bool ak ay kubéeri cin di ko fëgg mais loolu waxi dof la nit da ngay wax waxi nit Ousmane Sonko li muy daw mooy projet ak aji Sarr ca dana wuy ji looloo tax mu bëgg a taal dëkk bi man de fa ma dëkk képp ku fa yëngal bool wala xot kubéeru ci naan na koo yëngal naa xotti sa gat ba ci say nopp te yéen ñëpp nangeen nekk ci loolu Ousmane Sonko moomul dëkk bi bu bëggee taal na dem Ziguinchor mu taal ko foofu lañ leen di woo bu leen leen wuy ci waxi dof yi ñuy wax jërë ngeen jëf. waaw sant mbooloo mi fi teew yëpp du leen nuyu te di leen masawu coono. di nuyu presse yi nga xam ne ñoom ñëpp teew nañ fi di ziar dëkkandoo yi nga xam ne tamit wax dëgg yàlla boobu ba léegi gis naa taxawaay bi nu am ci jëf ji kon maa ngi leen di sant bu baax di am bu mag di ñaanal kilifa gii ñu nekkal muy Serigne Moustapha Abdou Lahad Mbacké sama borom guddal aw fanam lool te may ko wér ndax kilifa gu mat kilifa la uuf na ñëpp jaboote na ñëpp ku bëgg roy ak taalibe boo gis boo demee ci moom da nga am taalibe gu mat sëkk kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm li waral jataay bii nag xam naa ne wax ji du bari ndax li ci des jëf la bu yàlla dogalee ma nekkoon ci biir Pastef daan am loo xam ne daanaa ko ci joué di xeex di wàcc ci terrain bi dëkk bi ñëpp xam ma adduna nag day dox jamono moo laaj loolu woo ma di kilifa ma dem wuy ji ko ñu ñu wecceewante ay kàddu man ak moom waxtaan waxtaan bu yàgg te xaj na bi may dem niñ ma imposé woon jëmmam ak niñ ma ko présenté woon bi ma demee bi ma fekkee taal bi Sëñ Tuubaa laa fekk di ab murit di ko bëgg Sëñ Tuubaa toog nañ 30 minutes man ak moom di wax ci diggante Serigne Saliou ak Sëñ Tuubaa ci lañ doon wax daanaka boobu sore na loolu ci man ci waxtaan wi fi mu jaar diggante ak Serigne Saliou man nag dama di ndaw nekk ci dëkk bi ñu xam ma bañkat laa xeexkat laa lépp lu ma dugg dugg naa ci lu ma dugg dugguma ci. bi yàlla dogalee ma nekk ci biir Pastef xam nañ sama taxawaay xam nañ li ma man xam nañ li ma mënut kon bu yàlla dogalee ministre Antoine Diome tàllal ma loxo tey ni ma dafa bëgg ñu liggéey jàppale président Macky Sall bu fekkee bëgg naa réew mi tamay ndaw te am ñu ma yaakaar kon bu ma ko wuy jiwul kon man bëgguma Sénégal parce que bu ma fay dem yéen a tax ndax li ngeen di jooy dama bëgg mu jeex ci réew mi ndax seeni soxla. bu àggee ci moom man gëm naa ne seen i jafe-jafe dana jeex loolu moo fa yóbbu bu doon ab xaalis bu ñuy lekk wala bu ñuy dundee mun nañ koo lijjanti feneen ndax ñu ngi liggéey yàlla mu ngi ñuy dimbali suñu wërsëg ñu ngi koy am. kon dafa am loo xam ne bu amee ma nekk ci dëkk bi di xeex guddi ak bëccëg may xeex di jooy ba président woo ma ànd ak président Antoine Diome ministre Antoine Diome kon bu ma ko wuy jiwut dëkk bi ñoruma kon nag maa ngi leen di xamal ne bis ni ki tey maa ngi ci ginnaaw Antoine Diome fas yéene ànd moom di liggéey ak moom. dëkk bi nag ñëpp xam nañ ni dafa am benn contexte bu fi nekkoon ci jafe-jafe APR dëgg la metti na ci ñoom pour ñu am fi dara te dafa jot mu changé changé gi nag li ci jiitu mooy élection yi ñu jëm dañ ko war a sagale Serigne Mountakha Mbacké ndax gis ngeen cofeel gi mu am ci président Macky Sall loolu lu métti la am na loo xam ne munu ko wax waaye ñun ñëpp xam nañ ni xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha ku am cofeel ci président Macky Sall ku ko wax ak ku ko waxut di sant Mouhamed Cissé mii sama ndax suma xarit la man ak moom du ay politique mënu ko wax ci fii sama soxna xam na soxnaam moom xam na ñi muy àndal xam na parce que bëgguma sax ñuy dugg ci affaire politique parce que affaire xarit la man ak moom. parce que bi ñu ko investir ci liste bii man am naa jafe-jafe mais heureusement am beneen dogal bu ñëw muy ministre Antoine Diome woo ma ma dem wuyu ji ko Dakar ñu waxtaan. kon daal maa ngi leen di xamal ne bis ni ki tey dem naa ci ginnaaw Antoine Félix Diome ànd ak moom pour liggéey. kon nag ñëpp xam ne man Moussa Mbaye bàyyi naa Pastef bis ni ki tey. merci beaucoup beneen message bi may lancé nag maa ngi koy lancé Ousmane Sonko suma xarit ma wax ne askan bi ay gone yu ndaw ñu ngi faatu ci ay manifestation yoo xam ne wax dëgg yàlla mun naa ñàkk nañu waxante dëgg. ñi ma bokkal ay panel man xam nañ ni man noonu laay doxee parce que mënu ma comprendre heure bu nu wootee manifestation ñu ne trois personnes dee nañ quatre personnes dee nañ te weesuwul dara loolu ku bëgg a falu. loolu dama wax ne askan bi loolu war na dàkk nañ ko arrêté ci nu mu gën a gaawee bëgg jot nguur warta mën a tax ñuy faat ay bakkan man loolu duma ko cautionné duma ko rafetlu dañ ko war a dàqal ci nu mu gën a gaawee suñu borom mooy joxe cër ku mu joxub cër dana la ko jox mais am na loo xam ne buñ ko bëggee forcé ci réew mi danañ yàq Sénégal te jaru ko Macky Sall mi suñu borom moo tudd ci mu war a yor réew mi yor ko kenn mënu ci dara ñi koy yuutu buñ ko waree yor danañ ko yor kon maa ngi woo opposants yi sama mbokk opposants yi xam ne ci ñoom laa nekkoon nañu delloo si seen xel xam ne suñu borom mooy joxe cër képp ku mu war a jox cër na la jox cër mais mënuma d'accord ñu jël ay gone yu ndaw ñoo xam ne ñoo war a wuutu seen i wayjuur war a yor seen i wayjuur ñu jël leen di leen tekki terrain bi ñuy xeex ñu leen di rey ci zéro vraiment loolu dafa war a dakk ci nu mu gën a gaawee képp koo xamante ni soxla nga réew mi demal nga laaj ko ci xam ak yar ak teggin man loolu laa gëm mais d'accorduma jël ay gone yu ndaw di leen teg ci terrain bi ñuy xeex di reyante loolu wax dëgg yàlla bu nu sañoon mu dakk ci nu mu gën a gaawee may wax waa Dakar tamit ne leen tabaski baa ngi jub si nit ñi ay xare tabaski leen tal réew mi metti na wax dëgg yàlla ku ci wàcc terrain bi tamit ñu rey la vraiment vraiment vraiment say mbokk ñooy ñàkk ak sa ak sa ak sa famille may wax tamit ñi nga xam ne ñu ngi mas manifesté wu ci côté Masalikul Jinaan bi nanu ko moytu te warmaale ko Serigne Touba rawatina taalibe yi Serigne Touba yi ndax wax dëgg yàlla côté bu nekk war nañ faa mun a yëngu ba mu des barab boobu. parce que gis nañ li fa xew bii passé ci buntu Masaalikul Jinaan ñu di fa taal ay daay loolu rafetul ab taalibe Serigne Touba wut a bokk ci lu mel noonu. kon nag ñu ngi woon ñëpp am contentement bu baax di leen xamal nag ne man moom maa ngi ci ginnaaw Antoine Diome. dina xam naa ne daa ko sànni gars yi aw xeer man du ma Macky Sall Antoine Diome laa. su bàyyi woon suba Macky Sall damay bàyyi pour mu leer man duma duggantu damay wax lu leer naññ moo ma dugal ci président Macky Sall pour ñu liggéeyal ko ànd ak moom te am naa ci yaakaar ne incha bi rabbi jël ndam li teg ko ci ministre Antoine Diome jox ko mu jox ko président loolu man naa ko garanti te dina am incha allah rabi kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jaajëfal bu baax a baax a baax a baax mbooleem ku fi teew rek maa ngi lay sant jigéen ñi nag aw ma seen fay vraiment aw ma seen fay maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ndax bu nu wootee kenn du leen fi jiitu bu dee élection yi vote yéenay génn dem ci bureau yi vote ji kon ñu ngi leen di ñaan ni ñu ànde combat bi ñu ànd ko ba des jours élection yi jël ndam li jox ko ministre Antoine Diome mu jox ko président kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant sama goro yi nga xam ne nag ñoom laa nekkal fii di ay nit yu baax di ay kilifa soxna Jaw Gueye moom sëñ Basirou Gueye moo ngi fii sëñ Moussa Gueye mu ngi woon toog fii kon ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di sant nag sama soxna Soukay Gueye ndax nit ku baax la nit ku mën a muñ la maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko gërëm taxaw na ma jàppale na ma kon maa ngi sant bu baax a baax a baax a baax lépp lu mu yaakaar sama diggante moom yàlla na ko sang borom defal moo met yow mënumaa wax ci yow parce que lii boole wuñu quoi politique boole moo tax bëgguma dugg ci détail politique kon maa ngi tëj foofu di sant ñëpp mboolem ko fi teew rek maa ngi lay sant di la gërëm kon jërë ngeen jëf